réalité eh, aujourd'hui non loolu yi ñooy kaas quoi terrain yi ñu vendredi ah vendredi. Ndor bi commencé gendarme bi euh, yi <coughs> <coughs> vendredi ah vendredi. waaw léegi yéen boo leen taxawee fii gën a guddee. waaw mu ngi nii gendarme yaa ngi nii.